ragal bi Macky Sall ragal Ousmane Sonko kenn xamul app bi kenn xamul app bi vous savez euh, yu bari daf ñuy échappé et macha allah je dis encore merci beaucoup à voilà merci merci Mola maa ngi gis lim bind fii merci beaucoup léegi ndeysaan li ñu wax ne moom moo xew DGE donc Macky ñun li ñuy wax DGE yëpp di wax bandi ba fa ne monsieur Thiendella Fall Macky indi na fa ndekete benn magistrat lakkaale ko ci biir Birane seen la waa ji tudd kii mooy Birane Sène Birane seen moo nekk nii ndeke Macky indi na fa benn doomu lëfal ndeyam xoolal gémmiñ gi muy mel ni tuunu mbaam ndeke Macky lakk na fa ab Birane Sène ci biir ndeke Macky jël na ab Birane Sène lakk ko fa ndeke bépp banditisme bu ñuy bind ci DGE ndeke Birane Sène moo nekk ci ginnaaw bu ko bindee ba pare jox ko DG bu ba kooku nga xam ne moom taat rek mooy problème am mu jox ko ko kooku du xool sax papier déjà bay xam li ci ne ndax moom ñaari affaire ñoo ko sonal ci jigéen ci àdduna jigéen ak xaalis Biram Sen a partagé massivement sous le contrôle de Macky Sall amul benn médiocrité boo xam ne nit kalaat na ko ci Sénégal rek te amul xam nga ndeysaan maa ngi koy waxtaan ak sama benn xarit tey ci suba ñun dañu dem Sénégal tey ba def Ousmane Sonko une marchandise vendue xam nga sama rakk tamit da ko daan wax lu bari Issa Diène ku ko daan déglu ci live day wax loolu lu bari mu ne la Macky Sall marchandise la bu jaay bopp amin Ousmane Sonko marchandise la bu jaay boppam ba pare bu mën a jaay boppam tey nag ñu dem ci Sénégal on a trouvé que Ousmane Sonko a été commercialisé ba ci nitu Macky Sall yi bu ñu bëggee jaay marchandise Ousmane Sonko lañ koy tuddee tey seetlu ngeen loolu ci Sénégal ku indi marchandise walla ku taal live live yi ku koy taal wala kuy indi marchandise wala kuy wax da ngay dégg ku bëgg a wax ñu déglu ko sax day yuux ah man patriote la man de Sonko laa àndal vous savez même ba ci tali New York yi ñu ne sama yaay yi ñii jaaykatu beñe yi sax buñ ma gisee may romb ci mbedd mi dañ may waa Tunkara man de sama beñe Sonko laa ko tuddee te beñe bi day jeex tàkk voici la valeur de cette personne nit la koo xam ne valeur yegg na foo xam ne ci Afrique buñ ko xamoon ñun dinañu jaral suñu bakkan c'est pas le moment de baisser les bras sonn nañ de man maa leen gën a sonn te duma fi toog di di xeebal benn patriote li mu def ndax yàlla xam na man xam naa ne li ngeen def je sais les risques que vous, prenez mais jël genn wàllu risque risque mattaliwul xeex bi faut pas prendre la moitié du risque il faut ñu jël risque bi in full totality il faut mu jaral ñu dee gis nga booy dem ci xeex bul calculer bul dem di dugg à moitié di calculer ne ah bu ma duggee bu ma gaañoo waaw diw waaw kan moo may toppatoo non non non parce que boo xeexul sax di nga gaañu te bu boobaa ku lay toppatoo imaginer jël leen exemple tey damay laaj kan moo bëggul nekk saaba si saaba si fay kan moo ko bëggul nekk tey ci senegal saaba si fay. mooy tur bi gën a siiw man ni ma amee problème mu jàpp tur musuma dégg tur boobu sax déjà Sabassi mais vous savez que aujourd'hui juge si fay bu juumoon ba wàcc fu mel ni Amérique billahi wallahi tallahi waxuma la dañ koy jël en charge de mais il aura le traitement d'un président de la République gàttandu président lañ koy gàttandu toppatoo président lañ koy toppatoo ndax taxawaay bi mu am ci senegal c'est pas taxawaay bi mu am ci Ousmane Sonko mais taxawaay bi mu am ci Sénégal jaarale ko nag ci Ousmane Sonko tey saaba si fay ñun ñëpp dañ koy ñaanal yàlla imaginel tey magistrat je ne sais pas Issa Ndiaye mënatul woon ak kanamam fenn le magistrat qui avait volé aussi les élections en deux mille dix-neuf dañu nekk ci histoire du Sénégal ay ñoom Bassirou Gueye ñu fu ñu mën a wane seen kanam. ñooñu ñemewuñu ñëw sax bitim réew ñun ñu gis leen imaginel xool adduna bi ni muy xatee ci yow ak say milliards kële am na li nga xam ne mooy doomu aadama senegal Sénégal yëpp xam nañu koy saabasi Sénégal yëpp xam nañ ko tout senegal la ko ne ñun lan la ñu war a toogaat di xaar ci senegal lan Ousmane Sonko lum ñu desal il damay ñëw ak benn vidéo suñu freer bu baax bi ndeysaan dem Demba Touré muy indi farampàcc c'est important muy indi leeral ci li nga xam ne moo xew dama koy indi suñu frère Ngagne dem Touré hier il a fait une émission Il s'est très bien prononcé sur cette magouille de je ne sais pas de Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko dem leen ñu déglu ko parce que moom lui il faut savoir que c'est un avocat il a fait le droit et il il travaillait aussi dafa liggéey justice su Sénégal te nit la koo xam ne dafa jàng alxuraan meaning dafa ragal yàlla donc du wax loo xam ne rek par par loola day wax digganteem mag yàlla dama bëgg ñu dem déglu ngañ dem ba Touré am na sax ñuy wax ne le 26 octobre bi lan si nar a sëgg au niveau de la cour suprême euh, loolu tamit ñenn ñi jàpp ne bu nekkee ne dina am lu bari lay nekk lu gaaw lay nekk ndax jàpp nga ne aussi juridiquement que mën nañ ko tenir le 26 euh, octobre bi nga xamante ni si lañ jëm. bon juridiquement politiquement logiquement nekk parce que sa adversaire politique lan moo ko tere nekk candidat <laughs> nga diffamation dafa sosal benn nit quoi loolu. mun yenu na maanaam dans devant l'opinion nationale internationale euh, beneen bi mooy lu tax ñemewuñ ko woon enrôlé parce que li nit ñi war a laajte mooy la moo tax Macky Sall di rey boppam ci contumace ak yeneen procédure procès procès Mame Mbaye Niang bi ñemewu ko woon enrôlé hmm. parce que su ko bëgg enrôlé tey gars yi enrôlé ko parce que en réalité y a des motifs sérieux de cassation ah bon est-ce que composition bi jugé Ousmane Sonko en appel ba condamné ko à six mois avec sursis mm-hmm. c'était une composition irrégulière maanaam juge ko àtte composition bi jaarul yoon parce que le yoon daf ni ça c'est le code de procédure pénale nit ki boo connaître d'une affaire en première instance bokk mm-hmm. si ñu ko àtte wala ñuy poursuivre mënoo ko connaître en appel mm-hmm. parce que nag pas pour rien ñu àtte nga ne d' accord nga contester c' pas pour contester après ci la àtte woon àtte waat na ça n' a pas de sens. Mhm. parce dafa am ku wax Elisabeth Guèye Meng c' pas pour la dénigrer parce que ci lu rafet nañ ko xam substitut du la woon Amady Diouf après mu ñëwaat bokk ci composition bi àtte bi bi donc c' est parce que le parquet est. indivisible parquet benn parquet bi la en réalité. parquet benn parquet la le parquet est indivisible le greffe est indivisible hmm. c'est le siège qui n'est pas indivisible mooy les juges donc Élisabeth Guèye Mbengue mënul ñëwaat bokk ci composition la composition est irrégulière ça c'est connu c'est c'est donc y a motif sérieux de cassation loolu bokk la yeneen affaire yi nga xamante ne le fait que la cour d'appel a statué pour commune loolu renommé tout ça xam nañ ne bu ñu fa demee tamit nit ñi daane daal dañ ci yoon parce que Macky Sall moom moom mooy moom mooy piégé que lu mu bëgg ci C'est ce qu'il dit à ses magistrats. C'est ce qu'il dit à son ministre de la Justice. C'est ce qu'il dit à son ministre de l'Intérieur. te loolu mooy tax gars yi dugal ko ci illégalité boo xam ne après day dugg ci kàmb bu te génn léegi nag bu ñu bàyyee ba période bii ñu jàpp ne daanu nañ ci yeneen procédure dina lañ koy sulliwaat je ne suis pas sûr que 26 octobre day am su amee su boobaa sénégalais yi xam ne nag encore c' est une énième preuve parce que nag preuve yu bëri na. Yes. Huh? One forty four. So twelve individual right? Yeah,